téere bi mën a lislaam diiney maandute la diiney niti la lépp lu gën a maandute maa ko wax hmm. dama ne lépp luy gën a maandute boo ne diine la du dëgg même boo jàngul dara lu gën a maandute ku ko def jàkkaaroo mu nga ne ko yow li nga def xaraam na yàlla tere na ko même soo xamul dara lislaam lépp lu génn ci lu jaadu ci doxalin wu jaadu ci jëf ju jaadu ci mbir mu jaadu lépp lu génn lu jaadu rek bon sens bu la neexee nga ne araam na ndax li lislaam ki ko def mooy ki mën a def lu ne te moo def lu ne l'islam du jëfu kenn même du jëfu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'islam aw tëralin la woo xam ne sunu borom moo ko tëralal ñi mu bind tëralaale loo xam ne ñi ñi mu bind te tëralal leen mu tëralal itam ñi mu bind li ñuy jëriñoo mu tëralal leen lañ ko war a defee ak nañ ci war a demee آه، الكون والكائنات كون لي بروم بيغا خامن دا فا مات سك سيت ويتش من لول تليول دارا خم لول ريريول دارا موي فكي لب امول دارا لومو ووتي مو ام لب امول دارا لومو نياك تجيك في Tini ni serve mujj muy borom bi subhanahu wa taala mu teural dara nga na dafa manki ya xamul ya matul way batal ne xere nga na baxna wala na xere nga na baxul wala bata nga ande ak rek bu wax bu waxe ci ñu def nga na ah kay la bu andul ngom nga na ko way ya xamul sa borom sa borom bi nga xamne ne wax naa ko sank bi nga xamne mu ngi ma ngi dafa teewe lepp té amul dara lu mu wuté même la ngay xalaat ak la ngay yëg do ko xalaat ci yow kenn ko ak la ngay fekkeeg ak lepp yalla dafa xam lepp té amul dara lu mu réré mbir dama ne té yalla nek fu ne ne ne sax dàkk fi amul dara lu mu wuté ñakul dara te moo jëkk moo mujj tëral diine ak lislaam moom bu ko waxul sax nga xam waaye tëral ko ba noppi ne lislaam bi ma leen tëralal moo gën ci yéen moo gën ci seen lépp moo gën ci seen fépp ndax mooy seen lépp kon ma bëgg feeñal tuuti ci la ma ci xam ak ci li ci yek ci diini ji li ci xam ak ci li yek di sant borom bi bu tedd bi ma ci xamal aslëf santate ko mom mi nga xam ne won na ma ci asluf, mom yalla subhanahu wa taala ba nangu gis ne moy mom l'islam dal budul mom l'islam mo gën wenen tëraliin wu kenen di tëral ndax bu keneen tëral rek day fekk eh, du yàlla waaye wi yoon wi yàlla tëral moo gën ci lépp waaye itam tooñ weesuwul bokk yi foofu laay eh, taxawe tooñ weesuwul tooñ sa bopp tooñ sa morom tooñ sa borom weesuwul ngay waxal yàlla te xamuloo mm-hmm. weesuwul ngay defal yàlla te mënuloo Wesul, nga ne man may nangam te fekk yow do dara ndax dañ la bind kot fileeg meluloo nañ la melloo ti ngi ton sa bop yaa ton sax yang ka ngay lo ne dara nga yaa koy togn kon téere bi def mu ci nan lañuy jappé hmm def mu ci nan lañuy hmm defuma ci naan la ñuy wooree téere bi li ma ci def mooy lu tax ñu digal la nga jàpp lu tax ñu digal la nga lu tax ñu digal la nga nga woor lu tax nga ñu diggal la daal d'une manière lu tax ñu digal la nga jaamu yàlla mm-hmm. lu tax loolee yàlla xam ba digal la ko ne na ko def loolee moom laa indi ci livre bi te lépp nag nga gis ne lislaam lépp ak maandute la wallaay foo bépp atte boo gis muy tooñ nit xamal ne buñ ne la ci lislaam lañ ko wéer du noonu ak neexoon tey du guddi gi dab nañu ba ma ba ma ñemee leen a tooñ tuuti ci gën a xuus ci jël tuuti ci seen waxtu waaye wax dëgg yàlla xanaa misaal rek yoo xam ne mi rek dama la kati ak ci tooñ doomu aadama ci tooñ la nu dëkk ci tooñ yu leer yu wóor yu ñëpp seede te waxtu ne la nga koy def seetal rek nga xuloog sa foofu seetal rek nga xuloog sa soxna mm-hmm. nga xuloog sa soxna ne ko ne ko fase naa la ñetti yoon mm-hmm. am na sax téere fiqu yu ko def fase naa la ñetti yoon benn baat nga ne ko fase naa la ñetti yoon <laughs> ñu saxal ko ne loola nekk ne ñetti passé mm-hmm. seetal rek eh, eh, fiq yu bari mhm. rom livre ñu fassene lolu ñetti passé la té bala ngay mëna déllu waat sa soxna soosu nga wax lolu il faut musu de marché at ak kenen bako ko fassé waat ko boko bëggaté nga door ko mëna takkat dama né li ñuy wax ci arab at talaq talaq bu ne fassé na la ñett yoon talqa nga euh, euh, euh, sulas talaqat mhm. parce que li ñuy jaawale moy ak talaaku marrataani waxuñu ne ak talaaku talqataani mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bu ñu wax pour nga séyaat ak keneen il faut que ñu fasee il faut nga fasee ak ñett yoon waaye ak talaaku marrataani parce que boo ne baat bi fasee naa la ñu ne benn fasee naa la ñetti yoon ñu ne fase nga ndaw si ñetti yoon bala nga koy mën a dencaat nangam loolu ne ñu loolu charia wax loolu nangam wax loolu am nañu ko téere de wat bind den loolu la ñu wax man kay dama wax rek ci tooñ koo xam ne lislaam du ko tooñ kenn dama ne dégg arab war naa dégg arab rek war naa mën a tax nga ne waa ji boo nit ki ñetti yoon fase naa la ah ba gannaaw fase moom jëf jëf la buum gi buum gi boo ko jëlee nga fas ko benn yoon mm-hmm. bu ma nee la fecci naa ko bu ma ko feccee benn yoon bu ma la bu ma la bëggee wax ne fecciwaat ko dootoo ko mën a fecciwaat ndax fecc naa ko benn yoon mu fasu benn yoon rek la fasu woon mm-hmm. naa ko bu ma bu boo bëggee wax ne euh, euh, fecciwaat ko fecciwaat ko fecci du sotti mm-hmm. parce que beneen pas-pas nekku fi nekkatu fi ba ma koy fecc fecciwaat tooñ gi ma ngi ci ñàkk dégg langue arabe bi. Mhm, mhm. ak langue bi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo ci diire ji ñàkk dégg gi nag. mu sax lool mu yàgg fi lool. kon lu mel noonu rek laa indee ne lislaam maandute la lislaam euh, nite la.